xaritu yàlla yooyu nag borom bi junj na seeni melo lu bari lool ci quraanul karim yonent bi sallallahu alayhi wa junj na ko mu bari lool xëj na tey nag dinañ ci jéem a tënk rek fukki melo ngir ñu mun koo tënk mu nekk yóbbal boo xam ne day tax nga xaritoog yàlla yàlla nañu ko borom bi yombalal bokk na ca benn ba borom bi daa jël ñoom taf leen ci turam bi maanaam taf leen ci boppam bépp kilifa bu la wax ne taf na la ci sama bopp rek da ngay gis ne teral nañ la la naka yàlla nag bu la tafee ci boppam mu ne wa ibadu rahman kon amna na ibadu shaytan mais ñan la wax moom ibadu rahman jamu yàlla yi kon yàlla taf na leen ci boppam tashrifan ngir mu dal di leen teral mooy melo bu njëkk kon boo buggee xaritoog yàlla jaamu ko boo buggee xaritoog yàlla rek jaamu ko ñaareelu melo boo xam ne melo ñooña la ay melo yu daje la ñeenti jikko yu daje ñu def ko ab melo mooy suufe bi maanaa woyof ak leet ak dal ak bëgg jàmm woyof lewet dal bëgg jàmm loolu boo ko defee rek jël nga meloog xaritu yàlla yi والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يو خامني بو bu دوخ dox دوخ بي بوكو غيسي ko خامني ما شاء الله دوخ بو تالاتي تي te ku xamul ku réer bu ko jëmalee ay kaddu mu ne ko salaam jàmm rek jàmm rek boo ko xasee mu ñaanal la boo ko daggee mu jox la boo ko teree mu jox la xaka ah, salaam loolu benn la ci melo yi ba mooy sax ci jaamu yàlla rawatina bu nëbbu bi mooy julli guddi te jàmbaar yu bari tële ko jàmbaar yu baree bari dañ koo tële man nañ lu ne nag bedes loola naam mu ne ñu ñii ay melo la yoo xam ne samay xarit lañ walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ñoo xam ne dañuy fanaanee sujuud ak taxaw xiyaamu lay yaa ngi nelaw wala yaa ngi ci leneen wala tardé nga sax julli moom nekkee de doon julli ci guddi gi kon boo buggee xaritoog yàlla jaamu ko ñeenteel ba ñoom day fu ñu toll yaakaar du leen yóbbee ba ñu sàggan fu ñu toll ñu ngi ragal mbugalub yàlla safara duñu naagu mukk di dugal nit ñi aljanna hakaza la la la la man nangam man ni man na ki ni ki na la la la la la hada laysa min sifati awliya illah loolu bokkul ak melokaanu xaritu yàlla yi walladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannam إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما muqama fu ñu toll أي ngi ci loolu سفرا yàlla musal سفرا yàlla musal ma safara ndaxte dëkkuwaay bu bon la te ñaaw ñoom duñu naagu de déedéet juróomeel bi dañuy diggu doomu ci dépense foo leen fekk dañuy diggu doomu ci dépense walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bayna al israfi ñoom seen dépense mu ngi nekk ci diggante bañ a yàq ëppal ak bañ a néewal mu manqué ñoom ñu ngi ci diggante loolooy lan mooy fi jara dépassé la ñuy dépassé fii jaru la fii jara génneel xaalis dañ koy génnee waaye fi ko jarul la kon ñoom ci diggante boobu la ñuy juróom-benneel bi lépp lu ñu xes ne bàkkaar bu mag la dañuy jàpp seen bopp ne duñ ko def bu ndaw bi kay la bëri ngir bum leen rëcc waaye bu mag bi moom sori nañu ko borom bi junj fi ñett ñetti bàkkaar yu mag te ñett yooyu ku ko moytu texe nga bokkaale faatuk bakkan njaalo mu ne ku ko moytu rek jeex na والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق wala yazunun loolu ci melo xaritu yàlla yi la bokkaale moom la du tuuti bi du bu mag bi du bu nëbbu bi léeg-léeg sax dañuy bàyyi ci mbir moo xam ne laa baasa bihi xawfan mimma bihi baas léeg-léeg ñu ah lii de dara nekku ci waaw dara nekku ci waaye man moom banaa ko parce que damaa ragal dara fekk ma ci loolu mooy seeni melo lépp luy bokkaale sori nañu ko lépp ngistal bokkaale la déggtal bokkaale la takk gàllaaj bokkaale la gisaane bokkaale la fanaanoo bokkaale la listixaar bokkaale la yaa fi ñoom yi yëpp laa moo xam na bokkaale bi bu ndaw la bu mag la bu nangam la gannaaw bokkaale la pare naa ca xaakaga lépp luy tax nit loru bokkuñu ca luy tax deret tuuru bu dee kàddu duñ ko wax bu dee jëf duñ ko def bu dee colin duñ ko def bu dee lu ñu moom dañuy bàyyi mu dem deret bañ a tuur duñu tuur deret njaalo la dañ koy éviter ci téye seeni bët téye seeni nopp seeni làmmiñ seeni loxo seeni tànk yàlla nañu yàlla def xaritu yàlla juróom-ñaareel bi mooy dëggu ak maandu ak bàyyi lu sa yoon nekkul dëggu maandu bàyyi lu sa yoon nekkul loolu it mooy melokaanu gaa yàlla ya walladina laa yashhaduuna zuura wa ida marru billaghwi marru kirama ñi nga xam ne duñu fekkee caaxaan fa ñuy caaxaanee duñ fa taxaw bu ñu rombee caaxaan duñu geesu dëggu a sidq maanu lu yoonam nekkul yoonam nekku ci lii sama yoon nekk concerné ci du du ci wax du ci commenté yoonam nekku ci engagé wu ko yoonam du ca ne kon làmmiñam bii du ca jëm sàkka mu caay am bàkkaar ndaxte bu ca waxee mu dugg ci jëw mbaa mu dugg ci rambaaj kon làmmiñam bi moom moo ko moom waaye bu ko rombee itam na ko romb rek dem yoonam mënu koo tere amu ci paaru responsabilité marru kirama day romb mel ni dara amul mu daldi mu daldi dem yoonam juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi li yàlla tëral ne nii la ñoom ci lañuy ñuy yem kot duñ ca yokk dara yàlla ne nii la ci la yem kot nim la waxee ne tisbaar ñeent la ñeent bu manqué yàqu na bu ëppee yàqu na bu fekkee yaa ko tey leneen lii noonu la ni koy nattee ci tisbaar ba ci timis ñoom noonu la lii la yàlla wax daal fii la yem fii yem en tout cas lii baax na de waaw yaa xam man moom li ma yàlla wax fii yem li ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëddal fii laa yem te duma ci buñ ma ci woowee itam damay wuyu والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا بلين ووي وخلن يلا وخلي يلن تبي وخلي من دنيو تخ دنيو سلمخ دنيو دق لغا وخ سليون نكا تلتي كوكو وخ واي سليون فمو نك لامو آه، وخ لولنا تقاليكو يومبول دي دق ني نيو بري دنيو لاج كوكو وخ أبو آه، دي مودو لدي مومو fa biha wa ni'ma waaye bu dee bidaan la moom i ñoom la hada laysa min sifaati awliyaai rahman la la la la fu mu jóge rek ñoom la ñu wax la ñuy xool ndaxte alxaqu dallatu lmumin haysu wajadaha axada dëgg daa réer waaye jullita ko moom fu mu ko fekk rek jël ko dëgg hatta min famin kaafir fu mu ko fekk ki ko wax sax bu dee yéeféer dëgg la da ciy mooy kon waxu dëgg duñu seet ka ko wax waaye dañuy seet lañu wax ibadallah استغفروا الله تبارك وتعالى وصلوا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تاسعا من الصفات دعاء الله الرفقاء الصالحين والخلفاء الراشدين بكنا كي ملوكانو خريتو يالي فنو تولو dañuy ñaan yàlla أندا دو يباخ ak njaboot bu baax fu ñu toll ci loolu la ñu nañu koy ñaanee nag noonu lañ koy wuutee te noonu lañ koy defee àndandoo yu baax ngir ñu mun a baax waaye dañuy ñaan yàlla it mu may leen njaboot bu baax ngir ñu am seen gannaaw ku leen di wuutu walladina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama fu ñu toll ci loolu la ñuy sax ay yàlla suñu njaboot gii defal ñu ñu sedd xol fu bët dal ci ñoom rek xol ba sedd defal ñu ko xoolal niñ ko yittewoo rek te kañ koy ñaan mooy tabaraka wa taala ki nga xam ne qulubul ibadi bayna usbu'i rahman xolub jaam yi mu ngi ci loxo yàlla kon yàlla la ñuy ñaan ci seen it njaboot borom bi subhanahu wa taala may ñu njaboot bu sedd xol ñun ñëpp njaboot bu sedd xol lañu bëgg waaye ndax sukkandiku nañ ca laay tax njoboot seddu xol ndax ba ngay wut soxna seet nga ku seddu xol ci wàllu sharia ndax seet nga ku sedd xol ndax ba ngay wut goro ndax seet nga goro bu tënku ci li yàlla digle ba nga amee njaboot ba mu ganee aduna ndax defal nga ko li sharia wax ba mu dalee jàng ndax dénk nga ko ñu baax wala kan nga ko dénk sa doom bi koo ko dénk ndax kii def ci moom yàlla ak yonent ba jikko bu baax nga ko dénk wala kuy def ci moom allah diini wala kuy def ci moom ne suñu lii diine bokku ca koo ko dénk ñaan daa am fu muy taxaw kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel yow ci sa bopp ñuy sa àndandoo kan moo la forcé fi nga kuy sa àndandoo lu ñuy wax lu ñu fas lu ñuy def lu ñuy solo lu ñu bëgg lu ñuy waxtaanee lan la ñuy waxtaane mais yooyu yëpp da ngay bokk seetlu ko hatta al xayawaanaat hatta tuyuur ala ashkaaliha yaqa même picc bu naawee ñamu bokkal couleur fa lay dal picc picc bu ñuul doo ko gis mukk ci picc yu weex yi doo gis mukk mu ànd ak ñoom picc buy dal ci suuf doo gis mukk muy ànd ak picc yi dal ci kaw garab la abadan kon yow na sa tànn boobu moo définir yow xaritu kan la loolu ñu dal di ci bàyyi xel melo bu mujj bi nag boobu la ñu tàmbalee woon mooy in awliyauhu illa al muttaqun mooy yàlla mu ne man awma xarit lu dul kuma ragal kon melo ragal at taqwa mooy ragal yàlla melo booba boobu daa am jeexit ci adduna rek àgg bu ñu mooy at taqwa ñaata yoon la ko yàlla digle mu ne na fexe am ko ndaxte moo lay fanqal safara waaye na nga fexe amal ko sa njaboot ndaxte mooy tax ñu mucc borom bi wa taala junju fii ay mbir ci taqwa ku nekk war naa daal di sonn ngir loolu am ndaxte bu amee rek xaritu yàlla la ngëneel la fii ci àdduna wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib kooku asaru taqwa fi dunya parce que xaritu yàlla la bu ne képp ku ragal yàlla loo dugg ma génnee la foo nekk ma wërsëgal loo dugg rek ma génnee la ca yajal lahu maxraj wa yarzuqhu min haythu laa yaxtasib bu la ñépp bàyyoon it nga dund bu la ñépp mere it nga nefi bu la ñépp xeexee it nga gañe parce que indaka taqwa dangaa wéeru ci koo xam ne subhanallah ku dëgër la mooy borom subhanahu wa taala ñaareelu jeexit bi wa man yattaqi llaha yaj'al min amrihi yusra képp ku ragal yàlla mu yombalal la sa mbir boo jàngee mu yomb boo liggéeyee mu yomb boo tukkee mu yomb boo feebaree mu yomb boo nelewee mu yomb loo bëgg rek mu yomb yaj'al min amrihi yusran loo bëgg rek mu yomb lu tax parce que xaritu yàlla nga daf lay fànqal jafe doo dajeeg lu jafe lu yomb rek ñetteel bi wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'aatihi wa yuzim lahu ajra boo amee taqwa bi mu ne mboolem bàkkaar ma far ko mboolem bàkkaar boo def ma far ko te bu ma lay bindal tiyaabo damay tibb rek di sotti wa yuzim lahu ajra kon mbokk yi xaritoog yàlla am na solo de xaritoog yàlla wóor na de xaritoog yàlla dëgër na de li tax ñu gën a ragal gën a tiit nag ñaari xarit dong nga am arrahman wa seytaan imma nga xaritoog rahman noonoog seytaan wala nga xaritoog seytaan noonoog rahman wax lañ na melokaan yii tax nga xaritoog rahman kon góor góorlul ci melo yooyu taxaw ca di ñaan yàlla yàlla na la ci dëgëral